ñoo respecté wul les libertés te li ci gën a garaaw nag mooy attekat yi gis nga tey opposition Sénégal société civile Sénégal journaliste Sénégal euh, euh, nu mu tudd influenceur Sénégal seen adversaire du Macky Sall de suñu adversaire bi gën a mag mooy justice léeg-léeg soo ko waxee ñu ne bul maasale parce que am na ay magistrats yoo xam ne wax dëgg yàlla nii ak nii man leen waaw am na waaye ñoo ñu ne ci biir sax te xam injustice yi am ci biir justice ni muy doxee te koo ci wéetal mu mu ne la xam nañ ni mu demee dafa jaadu ñooñu addu parce que dénoncer lu dul dégg ñëpp la war tey ñun suñu adversaire du bennoo Bokk Yaakaar de Benno Yaakaar xam nañu duñu seen morom ñoo la ko gën a xam kuy xam suñu adversaire du euh, euh, euh, APR APR a gën a xam ni duñu moroomam te dara waralu ko lu dul réew réew mi leen woon gannaaw askan wi leen woon gannaaw te jublu ci ñun waaye Macky Sall justice la jël am nu mu ko monté ci ay postes yoo xam ne ñëpp xam nañ ko ci ay juge d'instruction ci procureur de la République ak ci ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu Cour suprême neleen nag ci yéen laa yaakaar masalan tey buñ doon dem élection daanaka sénégalais dinañ ne kan moo war a mun a dem élection tey kan moo war a mun a dem élection tey te lépp nag justice dañuy instrumentaliser gannaaw bi ñu modifié code électoral ba dugal ci lu ci nekkuloon ne léegi ku am condamnation même avec sursis munoo nekk candidat ñu ne léegi nañu xool nu ñuy utalee déccee benn kayit buñ ci paree ñu ne nañu xool ni ñu utalee ay dëmbuj benn kayit un rek kenn ne daf maa diffamé wala daf maa xeelu ñu ne ah condamnation avec sursis mën a soo nekk candidat justice mooy principal problème mu réew mi président union des magistrats bu ñu waxee mu jóg fëgg dënn waaw bi ay ministre Macky Sall taxawee xas of nag ne parti Pastef la ñu bokk parce que couleur yi xas waa cour des comptes parce que génn nañu rapport lan moo gën a garaaw lool Cheikh Tidiane wax na ko léegi ana union des magistrats wala union des de Macky Sall lañu moo ne tey su ma paree conférence de presse boo moytul ñu génn communiqué principal problème mu Sénégal justice la te chaque jour ma ne magistra yi ci réew mi ngeen dëkk moytu leen luy taal réew mi moytu leen yuy dee fitna te bi ngeen di waat da ngeen waat ne dingeen rendre la justice au non du peuple sénégalais ñaata nit ñoo fi taxaw ne rey leen Ousmane Sonko procureur da leen lan moo gën a garaaw loolu cim réew Ousmane Sonko yor ay mbokk yor njaboot jiital kuréel goo xam ne tey bu ne woon régler leen problème kooku boo moytul du fanaan këram lan moo mën a gën a garaaw loolu ana procureur de la république mais tey lan lay def. te li gën a garaaw mbir mi dootul justice ah jëlal kaaw Pape ña Niang Pape ñoom ñoo waxtaan ak ay avocat am ne leen wax leen ko mu d'accord ni dootul wax ci mbir mi bokk boole dossier am ak force de l'ordre yi ku xam Pape Alé Niang xam ni ku am personnalité la ku am caractère la bi ñu ko waxee dafa lànk ne duma ko def ay mbokkam ñëw wax ay avocat am wax ñi ko jege ñëpp wax nit ku nekk am na looy maye nit ku ne am na looy maye sinon rek doo nit mu nangu loolu ñu signaloo ko kayit yóbbu ko te biñ koy wax dañ ko ne kilifa gi mag gi la ñu waxal nee na boo defee loolu ñu bàyyi la mu def loolu ba noppi yóbbu ko ñu yóbbu kayit bi dugal liberté provisoire procureur ne du ma ko joxe kan mooy procureur si su dee magistrature am na koo xam ne mooy Macky mooy procureur ndax moo dépendre ci Ismaïla major Fall bi dépendre ci Macky xam nga loolu mooy essayer humilier nit toroxal nit pour wax ni gis ngeen il s'est déculotté ab julli dina am xol bu mel noonu te APR bi ñu fi toogee ba léegi en lañu ñu nekkee nit ñi dem ci plateau yi di wax lu bon ci nit ñi di saaga nit ñi di dugg ci waxu waaso waxu xeet waxu diine li APR jii ci réew mi bis bu dalee seen kaw dinañ xam ni yàlla yàlla nelawul gëmul ñu ñu jàpp bëri na te teguwul ci yoon tey ñi ngi wax suñu ñaari député yi nga xam ne député yeewi askan wi la soqe ko ci parti pur am seen immunité gis ngeen ni mu demee waaye balaa ñooñu ñaata nit lañ fi jàpp kiñ ci mujjee jàpp mooy Fadilou Keita bi nga xam ne dafa sës ci man doon organiser nemmeeku tour Sénégalais dañu war a xam ni kenn ku ne fi ne nii mën nga xëy suba suba suba te sax su doon dañ lay convoqué léegi convoqué te ñu dañuy enlever. comme jamono gestapo dangay ngay jékki-jékki rek oto taxaw ay ngandim nit jël dugg yenn la dugal ci biir oto ñu yóbbu la ku fiy posté Facebook xamal ni. sa prison mun na cee xaj ku ci dem ci plateau wax xamal ni sa prison xaj na ci foofu lañ toll ci Sénégal ñu jël benn dispositif bu am solo teg ko nag muy surveiller di dugg ci groupe WhatsApp bi di xool lu nit ñi di wax ak lu ñu waxul di ci jàpp ay nit di tëj bis bu nekk loolu ba kañ lañ koy seetaan donc loolu di ñaareel boo xam ne tey compté nañu lu ëpp 26 xam nga 27 nit yoo xam ne ay prisonniers politiques lañu ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Karim ñoom Papito Kara ñoom Ousmane Diagne nga xam ne nit a bind sa texte nga dugal benn émoticône daal di reetaan ñu jël la yóbbu tëj kaso loolu yëpp a ngi am fii ci senegal te kenn du ci àddu nag du ñu xaar lu ñu leen opposition sonn na métti na fipp nañu nga dégg intervention yi nag jàmm gën ay. nangam nangam et cetera et cetera